takkusaanu Serigne Babacar bi maa ngi koy def depuis 15 ans ren la 15e année bi je le fais personnellement bokk moo ci benn daayira bu dul daayira bonk bi man Serigne Babacar si mooy sama wasi la dama bokk ci njabootu Alaaji Malick donc euh, ba noppi lii dama koy def pour man personnellement voilà donc euh, si biir kër bi laa ko commencé woon suñu salle donc euh, ñu koy def di ko def ba mu génn si biir kër gi nit ñi xajatuñu si kër gi. dama ci juddu dama ci juddu ba noppi Serigne kër si wan ma ay kéemtaan yu bari dama koy rus sax léegi wax sama soxla ndax lu ma ko wax mu fajal ma ko. bés bi man le matin damay wàcce kaamin su ma wàccee kaamin ba noppi daal di ñaan daal di saraxe laax togg añ daal di saraxe sama koñ saraxe sa am di jàmb yëpp ñu daal di waji fa su fekkee àjjuma la tombeel ñu daal di xadara daal di ñaan euh, sëriñ Pape Malick Sy mi nga xam ne sama papa la moo yor sama lépp moom moo koy présider euh, njaboot bi yëpp dañuy ñëw Habib bu sëñ Mansour day ñëw donc euh, Mame Ousmane ñoom ñëpp dañuy ñëw parce que man dama bokk ci famille bi donc loolu moom moo tax sëriñ baaba kër si dama si damay defal leen loo xam ne amul dara lu dul di ko fayee nii amul dara lu dul bésam su jotee ma wàccal ko kaamil wajji ko fa ñaanal ko ko. loolu rek laa ko mën a fay te mënuma ko fay sax waaw sama référence la ba noppi sama wéeruwaay la daal. mun mun naa wax ne sax euh, stade sax pour man xeeb naa ko waaw stade sax xeeb naa ko pour yóbbu fa Serigne Babacar Sy journée bi stade sax xeeb naa ko waaw. su doon sama sañoon su doon sama sagoo 25 mars maanaam sax kenn du def dara ci Sénégal yëpp ñëpp sama kër la ñuy ñëw pour fêter bés bi. benn appel bu may lancé boo xam ne ne yaa may dégg képp kuy taalibe Cheikh bésu 25 mars bu kenn xalaat fen nañu xalaat sama bos parce que moi je le fais personnellement voilà je le fais personnellement te lu ma gëm la Serigne Babacar Sy lu ma gëm la lu ma defal loo xam ne man aw ma aw ma ay kiiwam daal munu ma munu munu ma ko sax di wax parce que damay bañ sax ca dugg si waaw sama wasifa la donc euh, macha allah daal. damay ñaan yàlla gudd fan fekke ba samay doom di jël relève bi tant maa ngi am sama bakkan bi incha allah dama koy def ba sangoo suuf.